Bougazelli waaw euh, dama gis benn vidéo bu ñu dugal sama arrestation te vidéo boobu kenn kenn kenn filmé woon ku dul Abdou Aziz Mbaye un gendarme ku nekk brigade de ba noppi dëkk dëkk dëkk Pikine xaw ma euh, dëkk Pikine xaw ma caaray moom moo ma doon filmé moom kese moo ma doon filme moom beneen bi ak ak ak capitaine moom ak capitaine Touré mais Abdou Aziz Mbaye si boppam laay porte plainte ba noppi. après xool si yeneen ñu ma ciy teg